c'est vraiment triste la dal dafa metti xam nga c'est pas nga am jabar mu génn àdduna nga amaat jabar mu génn àdduna loolu moo gën a tax kii ma jàpp ko ndax mënoon na jàpp ne bon li yóbbu ñee moo ko yóbbu. donc te bakkan yàlla moo ko yor yàlla. <laughs> ma ne ko daan ko def du yu bees ci kër gi. mais yow faama lu xew ba jàmm. jàmm la du jàmm xam nga sax lan la. premier jour koor gi ak deuxième jour koor gi yépp man maa koy togg. bul fàtte moom moo aaye de. da ngaa àbb gémmiñam. non ñun ñoo bokk ay gi. mais kër gi mënuñu jël sama lépp nag mënuñu jël caq jël jara nag jël sama lépp ma def baatu neen def loxoy neen. bépp garaawul awa yaay ni nga ko bëggee rek noonu laa koy defee. kër yow ma gis la sax. ah ma danga fekk ci waxtaan bu am solo li nga may doyee vocal ma ko. bépp demal loolu du dara awa yaay moo la woo yow tamit doo ko xaarloo lii mën na xaar boo ñëw ñu tollanti ko mu gën a neex. vas yow femme exemple neexul ba neexul mais femme exemple lan soo bëggee dégg dëgg. waaw moom nekkatuma ko na génn sama kër. da nga fàtte ne yow man bi muy bëgg a takkaat jabar dama wax ak yow lu leer ah. laaj nga ma xaalis jox naa la nee nga jox na si bu ñëwee nay wëy ci say waaw te loolu la def de. naata waxu la li ma ko li ko fi jëlee ay parole la man moom yàlla ay parole yu diis soo moytul moo fi nar a jëlee kii libéral yaayam mu dem sinon baayam laay libéré baayu kii. wuy ma wuy ma moom yaayam newu fi baayam newu fi sa yaaya fi nekk. loolu lu mu wund. jàmm lu xew. yaay maa mënoon mënatuma sax ku ko xeeb sa jabaro la ko waxul man maa mënatul mënatuma na kii dem wax naa ko kër dan nag mais ay kaf la ko jàppee soo ci jugul nag mën na jur yeneen ak yeneen ba ñu ma ci ba na nga defam yaa ngi tane ah, maman yow est-ce que sa va ça ne va pas condition yi nga jox dan yëpp mu nangu ko accepté ko loo ko wax mu wax ne waaw ba yóbbu sa yaay màkk bien avant muy takk jabar yoy bàyyi ma waxu màkk waaye kii damaa trompé laa la wax il faut nga déglu ma nga xam ni may wax waaye yow xam nga kii est-ce la yan la def kii bi bi muy ñëw ñu indil ma ko xale bu timide laa foog ni moom lan ma wax innocente bu xamul dara ndeke kii dem na Ndakaaru toj kees toj Casablanca xale bii daf ma trompé ah parce que tellement que man na ma defoon ni jógewul mais kii benn capable na criminel na banditisme dafa wuyu boo duggoon ci salle bi léegi gis ko di nga xam ni li ma lay wax dëgg la bandi la wuyu la hmm. dèjà ma nga jël tànki dan teg ci kawam di bës ak di wax wax bu duus dan bi ma ko demandé dama la soxla sax dafa ñaan permission nga xam ni fi ko xale bi di yóbbu doy na waar jigéen ma trop mu yor jëkkër nga yor jëkkër li muy def mënoo ko def waaw dama koo mën mën maa gëm sama bopp bay mën loolu waaw ah, lu tax mënoo xale bi moo jonge te warul jonge kii moo warul jonge nag yaay warta jonge ba pare kaa ma xamal la li ma gën a trompé pour man ndaama laay waxal ndaama laay jëflanteel maanaam digg bi nit daal comme caaru naata sutee ma tuuti ndeke nii laa koy xoolee ci kaw même sax bu koy xool day seet waaye yow faama dimbali ba damay rus sa oto rek moom saa yu ma tendeeg man puus naa bu tendeeg man puus naa yow kii fu nga ko juree yow kii lan la yow kii warul joge nag kii metti nga ma de metti nga ma de metti nga ma de ma trompé billaay daf ma trompé day génn kër gi hmm. sinon dina am neneen nu mu demee. kii li ko fi andi. Hmm. génneewu ko nag naana potu ndox te tëri. yéen hmm. bu ma toogee yaay nga defee du nangu dan ci samay loxo dan du dem ba ne ma fulkan. yow nga def ko daf bay sëy rek toog hmm. waaw. la la la la ngi ci de. ah ah maa ngi préparé de. tey sañse nga de. Ah oui ma yëpp pour kan. lii pour yow. ah lal naa. mais gisoo adaptateur bi. bonjour. waaw ça va. ça va tu vas bien. ça va ah ah a def bul toog mu lu xew. yow lu ma la wax démb. premier jour koor la du ay fo ma récupéré sa ay. waaye xanaa di nga ñëw accompagner li nga bëgg rek laay def maa ngi jégul dootul amati dégg mooy am jàmm am. yow bëggal rek loo bëgg ma def. <laughs> loo bëggul ma bàyyi. Hmm. waaw léegi loo bëggoon ma def. nga dem ci waañ bi ubbi frigo bi vérifier ma ganaar yàpp lan laa war a remplir xamaguma sax lu may togg moom déjà. d'accord amul benn problème kon maa ngi dugg ci waañ bi. baax na. man laas per nii. maa ngi ci yoon bi nag. fa noppalaku yaay am nit am ñu wax nit ñi boo xamul def vidéo man nan nga may def gën a jege gën a yooyu mën nga jur di la ko yar sëy bi man jeex na wax nga ko loo naan ko day dagg xam naa la décidé nga pour dem non damay dem waa demal man ma def comme koo xam ne dafa juddu rek yaa am dese décédé wala sax amul yaay lu fi andi dama bàyyi ma xool yow nag waa Tulaay sant wax moom nga waroon a jëkke apprécier bi ma génnee. ah bu eh? sama patron ma doon jënd na mesure yu bari dama koy won. ah waaw kay eh. eh taxaw kan ngay woon ah, dama dama lay jàppale. boo ko jàppale wan nga wax. yëpp benn la booy man ngay won. Tulaay yëpp nga dama ci. jàppale du won. ah patron ma doon. nga nit yi fii ma am daan mu waay. yaa ngi ciy na yaa yàppalu sa bopp. bi nga waxoon mbaxal. mbaxal. ah du nee nga wéroo. <laughs> Ah, waaw moom lañuy ñuy maintenir mais wuyu ma tey moom bàyyee mag sama waañ. dinaa gérer lépp. Ah, mhm. ah, téléphone du ma changé menu bi def plat bi. plat bi dafa na ok kër da xoolal plat bi. bu la neexee rek ma changé monnaie bi ah ok. comment valise bi. sama valise la. ñaar baax na ma gis nga. yaa kon baax ma def palaat bi. ñëw dimbali ma. foo nar dem ni yow. kër paas ah, yu bees ak plat yu rafet ak nga nar dem. ah mu ngi xool di comme d'habitude. mère man damaa am gan dafa am ku fiy ndogoo te bëgguma nag gàcce laay bañ. toog ah, na at la léegi plat bu rafet. mère wane ay plat yu rafet taxut ñuy wax wane ay plat yu rafet togg plat yu neex da koo gën. gis nga lu mu wóolu loxoom ñun suñu biir yi sa loxo lañu wóolu. kër da lu ngeen di foofu. sa yaay maa ko ne na toog ndogoog ñun di moo gën muy dem kër maas. doom doom la rek. loolu laa ko wax naa recette sax. dégg dégg nga li ma dégg nga dégg naa recette. téléphone bi laay sàcc. kër daal loo loo loo murmuru nga ne dégg nga la. ko toog na. toog na waaw. na jeex na fii day wàcc. sa waañ. mu ngi gën a yànj melax. ak yow tamit Maggi arom am na ingrédients yi nga sopp yépp cafka gi xeet gu neex gi ak couleur doore bii ci arôme ak soble piment ver ak laaj seeni togg gën tina saf ak bi xeetu arôme bu riche Maggi arôme mooy seen àndandoo bu gën a wóor ci safal seeni ceeb ak soos Maggi arôme roy du nur ak piir ak Maggi arôme toggal soppi sa dundu lan moo dàq li xoolee. buntu fa lay nga toog sa kër géré ko. gis nga. jigéen day toog këram. li nga defal man dama xamul lan moo la ci dugal yow loolu du sa jikko sax lii lan moo ko dàq. sa sëy bu ci dugal kenn yow gérer ko sa bopp dégg nga. incha allah. lan la. yee tey moom surprise la demal nga toogi. du tey ma jàppale la. jàppale jàmm. gis nga tey ñëpp laa dàq ci waañ bi. demal toog nga xaar. ma ne moo ma si gënal. <laughs> maa ngi génn te ñëw waale waale yow ci affaire junior bi. affaire junior ci lan. waale Diouf affaire junior ci lan. xamoo ci lan gis nga sa dof-dof lu gii laa bëgg nga bàyyi ko doom bu góor baayam jëli ji sa doom nga teg sa wet. xam naa ko. xamoo ko kay. <laughs> da nga war a comprendre ni man maa la gën a xam foofu ni doom bu góor baayam a ko yor. jëli ko ci yaayam andi ko ci kër gi dafa am procédure te man maa ngi ci waxoon naa la ko. yow defal naa rek. Waly Diouf gis nga man dama sonn procédure procédure ba kañ. mais procédure ba gis nga Waly war a bàyyi sa dof-dof lu gii nga nekkee. man li xew lépp yëg naa ko gis nga man ci dëkk bi laa dëkk lu ma bëgg a xam-xam ko ah yow jaaba njale nga bëgg di gauche di droite loolu du fi amee waaye ju xam loo bëgg nga réglé eh. toog toog fa loolu laa bëgg yow mimi man ngay toog la man maa lay réglé loolu mais waali yow da ngaa war a réglé parce que li nga bëgg man du ma ko nangu eh, li nga bëgg du ma ko nangu waali jif li nga bëgg du ma la ko eh, kii dama bëgg nga wax ko boppam de dama bëgg nga wax mu toog fi ma ko teg su may jëli suma ma doom wala su ma ko dul jëli du moom moo ma koy sant saa yu ma neexee laa koy seeti dama la koy wax mimi noppil mimi noppil waaw mais kii ñàkk na fay de trop tam jëm may ko baaraam ci loolu yoon ngay ut waaye gis nga fii billaay di nga xam ne lépp dëgg la yow waa di def capable loo sax fii nga may fekk eh. fi nga ko rig foofu la xoolal nay saf sap bul ko may dara teg ko pression xoolal junior nit ñi ci kër gi dégg li ma lay wax bul ko may dara lu leer laa lay wax nay tàng jër rek bul seddal de tey moom kontaan naa ci yow waaw kay. sama biddéew yi namoon naa leen naka koor gi nag <laughs> yéen ko doon xaar yegsi naa. ren moom concept bu bees tàkk laa leen andil concept bi nag mi ngi tudd tout le monde est invité c'est-à-dire que yéen yëpp invité naa leen fii sama biiru waañ te bu leen fàtte de maa ngi ak yéen fii ba ramadan bi di jeex tey nag spécialité bu jën laa leen andil ay ca leen ñu dem ilaa yaa leen man yaay yi duñu benn de waaye jeet yi yemuñu. macha allah ngay abbaari. père <laughs> ak déccey sa maam. ba mu bari doole. macha allah macha allah nii laa ko bëggee waa looy def. xoolal paaka bee jëkk bon bii. ñam ñam bii du paaka wañ paaka taabal la. dafa dëj dafa dëj. lii koy gën a dëjal déglu ma. Hmm? pes bi lu muy def fii. da bëggu ma roof. Tulaay maa ko dàq nee naa ko tey bul laal dara ko dafa bëggoon dëbb roof maa ko maa koy fa sama. waa bi du jiitu nga raxas say jën raxas ko ba mu set. roof ko teg ko neew upp ko déglu ma hmm? talaatay ndeer buñ koy wax ña fa taal seen bopp say maam lañu sa maam bokk nañ danga am jom fa nga jële jom bi danga may déglu nag yaa ngi sa waay hmm. te ndokk bi ma toogee ndax day am ay gan hmm. woowal tulaay taxaw gauche. yow poulet bi laa taxaw tubaab bu def ci persi bu bari. def ko samay nganum ndànk yaa ndax li nga ma waxoon keroog ci farce bi ni ma jigéen day xër loolu laa jël ak xër ba ci poulet. bu la faat si faat si ceebu jaga faat laa la wax mais ceebu jaga na bu la ji réer ak feeñ. yow yaa yow dëgg yow moom sa tool. supame bi fu mu ay waay faama bàyyi ma lii waay a boroof tulaay. ñëw ah baax na baax na demal rek. tu tulaay. ah waaw ma tulaay. ah ku soñu bañ sa na balaa maa na aji rek. waay itol foo deewul. maa ngi nii namm naa la. maa bi doo ngi nii waay. <laughs> maa ngi ziar. tey maa ngi seet woon da baax. non yow yow amul morom bi laa. dëgg fa yàlla yow mi bàyyi sa lépp. ñoo dem ziar si. en tout cas kontaan naa

soo wóorul wax nga ko man leer naa la. taxawaay su jumaa bi rafet la mun lay ñaanal ba ni maas dama kontaan mais noonu xam nga ni ji ceeb moomu ah. laa ilaaha illallaah dëgg ni daw màq la ma fekk waaye jaw lii Sénégal. laa ilaaha illallah xam nga lii amul mas bu nekkoon bu toog jotoon sa xel day nekk si gii ceeb ñam na si jàmm yàgg jërëjëf si bon appétit jërëjëf ay gars yi bisimilah